inscrit 808 votants 250 suffrage exprimé 250 Benno Bokk Yaakaar 114 Leeral Sénégal 4 Tekki 3 PDS 11 PDS oui PDS euh, autant pour moi

3 PDS 16 Bokk Gis Gis 4 Bës du Ñàkk 45 AJ 4 MRDS 27 PVD 12 Faxas 6 Tenco 3 les Verts euh, au niveau de l'école Morakan euh, il nous m'en reste euh, trois classes trois bureaux de vote Khalifa Euh, merci beaucoup. Nous poursuivons ce direct, euh, ce direct euh, pour attendre les résultats de ce scrutin. Il y a aussi d'autres résultats attendus euh, ce soir. Il s'agit de l'Euro 2012. Eh bien, l'Espagne a mis l'Italie à genoux 4 à 0. Nous poursuivons Malick Diagne. Donc ñu ngi woon si olof bi wax ni résultat yi ñu ngi koy xaar am na aussi résultat sport muy Euro de Euro 2012. alors Espagne daal dinay daan daan bu metti Italie ñeenti bal ci dara. ñu wéyal ba tey ñu ngi woon donc ci ci scrutin bi ak anam yi nga xam ni noonu la tëddee muy euh, euh, scrutin majoritaire à un seul tour euh, tey nit ñi wuyu jiw ñu lu bari ba tax na ñu ngi naan dañu war a boole élection législative yi ak élection présidentielle yi ak yeneen ak yeneen sax bu ko defee njëg gi muy jar Sénégal dina gën a oyof waaye problème bi mooy ñaari xeetu scrutin yi tëralin bi dafa méngawul trop loo ñu si mën a leeral ci wàll boobu. waaw xam nga loolu taux de taux de participation moom ak. ak taux d'abstention lu jar a jàngal la ci démocratie mhm. parce que message le signal la bu bu électeur di envoyé di envoyé gouvernant yi euh, di envoyé république am mhm. euh, ñu bëri dañu jàpp ni ci ci démocratie euh, taux d'abstention bu bëree rek c'est parce que na un problème mhm. c'est parce que électeurs yi ñu ci ñu dëkk bi. oui maintenant mënaguñ ci sori parce que il faut ñu xaar d'ici ce soir pour xam une idée pour am une idée exacte du taux d'abstention ak du taux de participation mais am na déjà ay jàngat yuñ ci mën def. Mhm. Euh, man dama jàpp ni xëy na peut-être ci juróomi weer. Mhm. ñu woote ñett yoon électeurs yi parce que bon il faut il faut se rappeler aussi que février ak mars moon na deux élections par deux fois électeurs yi dem nañ voté ji mm-hmm. donc ñu tegaat ci après ñetti weer ñeenti weer ñu woowaat leen ay élections législatives yoo xam ne mm-hmm. ñu bëri xamuñu lan lay tekki donc comme ni ñuy demuñu wuyu lu bari loolu moo waral ñu ne dañ ko war a coupler couplage boobu lan moo tax warul mën a nekk wala boobu bu mën a nekk du ko tax yombee. mën na nekk mën na nekk parce que Sénégal en 2001 amoon na amoon na amoon na couplage élection. Mm-hmm. Euh, ñu bëri sax dañu jàppoon ni euh, pour des raisons de rationalisation budgétaire il mm. faudrait que Sénégal ñu réfléchir ci loolu parce mm. que ça permet quand même euh, bañ a dépenser xaalis bu bari xam nga tey boo demee nga gis lu mat vingt six listes mm. ku nekk am bulletin nga jël benn rek ngay jël nga dugal ko ci biir enveloppe bi yeneen yëpp da ngay jël nga sànni ko tout à fait xam nga loolu dafa cher parce que parce que parce que ay bulletins la yoo xam ni bon da ngay fay imprimerie bulletins yoo xam ni benn jour ñu jël 26 25 yëpp ñu jël ko sànni ko ci. heureusement heureusement que c'est recyclé. voilà donc nañ si jaay mburu ak euh, euh, ak caaf. voilà donc loolu loolu jar a xoolaat la. mais yaakaar ni aussi techniquement warul mën a am problème. c'est vrai que. Mhm. nature euh, type de scrutin yi duñu benn. parce que mhm. présidentielle moom majorité absolue à majorité absolue la. Mhm. premier tour bu fekkee candidat bi am na la moitié même plus une voix. day jàll. Mhm. bu ko amul nag ñu dem deuxième tour. comme ni ñu gisoon ci élection présidentielle 2012. Mhm. alors bii nag moom euh, élection à un seul tour la. te dafa am ay députés yoo xam ne dañ leen di élire ci département. Mhm. maanaam du ñu xool voix à l' nationale dañuy xool département bu nekk ku nekk la nga fa am. ñu xool ku ci ëppale ñu ne député yi yaa ko jël dem. mais ma yaakaar ni loolu war a mën a nekk la. je pense techniciens yi nekk ministère de l' ak ñeneen ñi nga xam ne dañu seen xam-xam dafa màcc ci wàllu élection. mën nañ toog xalaat. Euh, Euh, ban formule mm-hmm. moo adapté wu pour kaawu Sénégal parce que c'est vrai que euh, y a un problème ci calendrier électoral parce que tant que tant que tolluñu tant que ñu ngi ba ci mode de scrutin bii nii dafay jafe lool pour ñu boole ko waaw mën na jafe mais mm-hmm. na jafe mais mën na nekk mm-hmm. mën na nekk bu boobaa dañuy euh, am na un certain nombre de dispositions yu ñuy jël rek ah bu boobaa dañuy naan par exemple premier tour xam nga boo xoolee Sénégal élection présidentielle yi tey buñ ko jëloon ni PDS su Ablaye Wade ñooy majoritaire. parce que ñoo gagné woon 35 départements. oui xam nga loolu dafay xaw a jafe. bu fekkee élection législative la. parfaitement donc mais mën nañu xool ban formule moo adapté wu. est dañuy jël résultat au premier tour yi. Mm-hmm. wala dañuy jël deuxième tour a xoolaat la naka la ñuy mën a def ba nga xam dinañ couplé. Mm-hmm. te du mën a am benn problème. rawatina dafa am maanaam benn ñàkk tolaatle bu am ci ni ñuy euh, séddalee député yi ci biir département yi. mode de scrutin bi ak maanaam yow sam njàng mu ngi dellu ci euh, tëralinu euh, gox gox ya gox goxaan yi eh bien ni ñu tëralee euh, séddale bi ci département yi dafa indi tollatle bi daal matul. waaw xam nga mën a waxee répartition bi. waaw loolu nag xam nga xam nga comme ni ma la ko waxee woon sànq rek. Mm-hmm. décret bu président di jël la. Mm-hmm. buy euh, pour élection législative di répartir les députés yi nga xam dañ leen élire sur les listes euh, majoritaires di leen répartir entre les départements xam nga Sénégal am na 45 départements mu am 90 yu ñu war a kii mais xam nga doo jël 90 yi rek ga bu dee ko ñaar mhm. parce que décret bi aussi dafa am fu muy fu muy euh, fu muy fu muy tegu c'est dañ naan taayu population c'est mm. vrai que boo xoolee tant que ba léegi maa ngi joxe kaaw Dakar parce que c'est intéressant mm. Dakar nga xam ne pratiquement am na am na électeurs yu bari plus mm. de pratiquement ay sept cent mille nga jël beneen département boo xam ne amuñu sax cent mille ay quatre-vingt mille comme Kédougou mm-hmm. xam nga am na disparité bu énorme donc moo tax ñu jël Dakar affecté ko sept députés jël jël jël département bu mel ne Kédougou benn député mm-hmm. mais yaakaar ne nag xam nga ñoom ñëpp dañu war a dem assemblée nationale bu boobaa waxal askan bi xam nga boo gisee député yoo xam ne Dakar alors que Kédougou benn député rek lay am su fekkee Kédougou dafa jar par exemple sur le plan de l'éducation sur le plan de la santé wax gouvernement bi mu góorgóorlu mhm. benn baat rek la fay am ak peut-être député bi nga xam ne mi ngi jóge sur la liste nationale mais en tout cas benn baat alors que Dakar dina am sept baat mhm. loolu day tax Dakar day gën a am day gën am doole gën a am voix mhm. yaakaar ni aussi quelque part. bon am na réflexion bu ñu war a mënee. pour xool naka la ñuy uniformiser euh, ba nga xam ni dina dina dina xaw a am tolloo loolu lépp nag bon comme ni ma ko waxoon sànq rek politique d' aménagement du territoire. moo ko moo lal. Mm-hmm. parce que boo ñëwee Sénégal bon a un problème euh, d' territoriale comme ni ma ko waxee woon sànq. Mm-hmm. amul benn cohérence mm-hmm. doo doo boo ko dee jàngat da ngay am difficulté ñun ñi nga xam ne dañuy dem di ci liggéey souvent dañuy am difficulté parce que dafay am disparité énorme autant au niveau de la population. Mm. parce que da ngay gis Dakar am plus de un million d' habitants. Mhm. nga dem benn dëkk boo xam ne doo fa sax lu mat deux cent mille habitants. nga gis xam ne day am ay sa wàllu sa wàllu seetlu parce que problème décentralisation bi amoon na problème yu bëri yu mu juróon euh, ci juste ci avant fin wu régime Wade. Uh-huh. donc ndax yaakaaroon ni politisation bu ñu politiser découpage yu demee noonu moom mooy moom mooy indi loolu wala ça n'a rien waaw am na ci wàll boo dee xool am na ci wàll parce que quand euh, découpage yi bu ñu ko dee def en général en tout cas dañ ko tàmm def Sénégal à chaque mm. fois bu ñu ko dee def amul benn xam nga li tubaab di wax principe rationalisation mm. dafa am importance maanaam boo taxee ba ni ah man damay jël fii ma def fa département mm-hmm. day fekk nga teg fa lu leer ah, mais doo pour le besoin de créer un département parce que yaakaar na ni am na réservoir électoral bu nekk foofu mhm. donc naa fa def département parce que dina jariñ du point de vue politique mhm. dëkk du doxee noonu république du defee noonu parce que quand même territoire lu am solo la mhm. territoire dafay jouer rôle bu mag mag ci économie donc est-ce que autorité bu ñu gisee ne ça été fait un peu n'importe comment ndax mënees na see euh, dëkk yu bëri Afrique en tout cas dafay am ay conséquences néfastes yu bëri ba ci économie bi. oui waaw ba tax na ñoom en tout cas beaucoup de pays comme le Bénin comme ñun fii ñuy dem di souvent di fa liggéeyee. Mm-hmm. ak yooyu yëpp ba Guinée Bissau ba ba ba Cap-Vert ñu ngi réfléchir sur seen politique territoriale. parce que xam nañ ni politique territoriale boo ko réussirul rek. Mm-hmm. doo réussir développement économique parce que lu am solo la lu am importance. mënuloo développement nga concentré ko ci Dakar. Mm-hmm. ci pikin ci Guédiawaye ci Rufisque ci mm. Thiès wala ci Saint-Louis. très bien hein? Sénégal c'est c'est un tout c'est une nation c'est une république indivisible donc il faudrait vraiment ñu travailler beaucoup sur politique d'aménagement di am ay schéma d'aménagement du territoire yoo xam ne yu cohérent la mm. yu lisible pour que mu mën a am njariñ au niveau économique alors Malick Diagne euh, journaliste et spécialiste de la décentralisation alors euh, avant de vous euh, libérer euh, mm. nous vous laisserons tout à l'heure euh, nous parler des des enjeu justement de ce scrutin, mais priorité au direct. Dans un instant, nous retrouvons Mamadou Omar Ndion de Kafrine. Mamadou Amar Ndion, bonsoir. Oui, bonsoir euh, Khalifa. Alors Mamadou Omar Ndion, les résultats Kafrine, les résultats provisoires, les premières tendances oui, euh, Khalifa, nous n'avons pas encore les résultats globaux au niveau de Kafrine, mais petit à petit, euh, il y et nous avons les résultats du centre de vote Ndene Djodendjaï ou École 5. Là, c'est le, le plus grand centre hein, de la commune de Catherine. Oui. Nous avons sept bureaux euh, ici dans ce centre et il y a le nombre d'ES qui se, se, se, voilà, se chiffre à 5211. Très bien. Alors, alors Mamadou, euh, juste, euh, juste une précision. Est-ce que vous me confirmez que le taux de participation à Catherine euh, est relativement intéressant euh,

Voilà, pour le Très moment, Voilà, euh, donc euh, je disais de Ndiaye est un centre témoin puisqu'il compte euh, 7 bureaux. Et a 5211 inscrits. Oui, M Mamadou Oui. Mamadou, nous vous entendons, oui. Oui, 5211 inscrits, hein Oui. Centre Ndene de

oui. Benno Bokk Yaakaar avec 1162 voix. Mm -hmm. 1162 voix. Vous avez du mal un peu la lumière, Mamadou? Euh, comment? Vous avez du mal un peu la lumière? Euh, non, ça passe. J'attends que vous soyez prêts pour le. Voilà. C est, c est... Eh ben, nous sommes tout à fait prêts. Vous êtes à l'antenne. Euh, alors, euh, donnez-nous tous les résultats que vous, dont vous disposez.